mil yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet dara ci réew mi. dal leen ak jàmm ci lii yéenekaay yi xëyee tey libération di ñu xamle ak ñañu teg loxo di ay jege jegeñaalu Ousmane Sonko takku lool démb di waa Géwul waa Louga ak ab taskatu xibaar bi ñu duppee Mati Sarr ñu teg ko loxo ndax woteeg fitna ñàq orma njiitu réew mi ak atekat yi di magistrat yi. témoin le quotidien rëdd ci xëtam mu njëkk moom itam ci procès bu suite beauté di dox ci diggante Ousmane Sonko ak Adji saara muy àddu ci li procès boobee yóbbee Sénégal boobu ba ci ñaar bakkan daal di cay rot waaye itam yàqute yu bare bare yu kenn mënta xayma liggéeyu jàmbur yu bari yu ci yàqu teg si itam ak ñàkk orma bi ñu lu jëm ci àttekat yi Walf Quotidien di ñu wan nataalub maître Ciré Clédor Ly di kenn ci avocat yu usmaan Sonko yi muy xamle moom avocat bi ne client am nag amut benn dogal bu àttekat bi jébbal ngir ñu teg loxo client di Ousmane Sonko Le Quotidien di rëdd moom itam la tax ñu dàq sax àtteb Sweet Beauté bi ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai bi ñu dëgmal la ak jàppante yu métte métti yi amoon démb sa Ziguinchor Sédhiou ak Goudomp enquête xëy moom itam gën a xuus ci lu waral dàqub procès Sweet Beauté bi te itam bu ñu koy amalati ab audience spéciale lay doon maanaam mbir moomu képp la ñuy àtte foofee ca tribunal ba bés ba l'observateur moom itam di dikkat ci li tax ñu dàq àtte suite bote bi ak li mu jur yëpp naqar ak tiis bu ay mboqub gone gi ñu boom sa kër Mbay Fall ak dépôt bu Dakar dem dikk ba ñu taal ca Kër Massar Sud Quotidien xëy moom itam rëdd si xëta mu njëkk si procès suite bote bi ñu dàq ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mais ndax vice de waxee ci ni mbir yi waroon na tëddee ba tax àttekat bi dàq procès boobee Ousmane Sonko kenn gisu ko fa moom gendarme yi ak police ya jàppante woon sax sa buntu tribunal démb sus a di nga xam ne moom itam ak gone gi génn àddina sa kër Mbay Fall muy wuyoo Pape Amadou Keita yéenekaay bi di dikk ci na mbir yi demee bu ñu boom xale boobee la tribune di addu ci yo procès su beauté bi moom itam di ko méngale ak comédie maanaam ay foo teg si it ne boo mayul moom Ousmane Sonko dina teew ca procès ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai bi ñu ma la ngir bañ deret di wéy di tuuru ragal itam li ñu duppee contumace daal di dal ci kawam maanaam ñu atte ko ci ate goo xam ni du ko fekkee laas di ñu xamle moom itam si xëtam bu njëkk condition yu gone yu Pastef fi teg gannaaw ba ñu defee ñaari fan di xeex xeexu yu métte métti ak takk der yi waa Grand Place di ñu xamle ni juróom fukki avocat nar nañoo teew ci procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr boobee Le moom itam ci xëtam mu njëkk ni njiitu réew mi Macky Sall teewoon na ci ab ndaje bu ñeel xarala yu bees yi mu fay dànkaafu sax ni képp ku def naka sudul noonu ci réseaux sociaux yi di xarala yu bees yi yoon dina teg daan bi war sa kaw wa yéenekaay yu bare bare xëy tey itam rëdd ci génnub àddina kii di xalif bu Njaasaan di Cheikh Bekay Kunta walu taggat yaram la jeexale ak record mi dikk ci jongante demi-finale Ligue des champions bi doxoon ci diggante City ak Real Tribune ak Sadio Mané des Bayern ren jii moom gaynde gu senegal gii réew mi sport feelu ko ni Sadio Mané bëggatul football sa Bayern muy rëdd itam ne Inter Milan mooy équipe bu njëkk a ci finale Ligue des champions ñu jeexale sunu làmb ak nataalu Bombardier muy euh, tëkk Sathiès naan dafa daw combat bi doomi du dubalees bi ak ay mbokkam dañoo delloo sama avance si ay kaddu Bombardier ci biir yéenekaay bi di sunu lamb. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet. daara du la